Boubacar Mbodj directeur du commerce extérieur ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay soxna fi. voilà ñu door rek euh, li nga xam ne mooy yokkute gi ñu gis euh, ci njëgu duulin gi tey jii lan moo koy expliquer euh, selon yow. waaw xam nga dëwlin dafa fekk ñun lu ëpp lu ñuy consommer ci dëwlin ñu ngi koy jëlee bitim réew. Mm-hmm. te actuellement njëg yi bitim réew moo yokku te loolu su amee donc au niveau du ministère ñuy xool pour ajuster waat la structure des prix maanaam ñu xoolaat cest à bu prix buñ ko tënkoon parce que aussi war nu gaañ commerçant yi parce que commerçant yooyu aussi di indi dëwlin bi seen xaalis seen yu dugal mm-hmm. donc soon leen yéen li ngeen ko doon jëndee yokku na mais amu leen droit yokk li ngeen di jaayee fii biir réew mi ça veut dire que dina dem benn moment doo gis sax jëndal moo tax ministère bi teg benn bànqaas boo xam ne moom mooy xool loolu mooy seetu loolu su amee augmentation mu répercuter que mais day xool que mu def que de telle sorte loolu bañ a doon gaañte pour consommateur bi donc situation boobu doon nekk moo tax suñu collègue commerce intérieur ñoom ñoo xam ne ñoom lañ dénk fànn boobu ñoom def nañ si liggéey bu mucc ayib ba si noonu ajuster les prix ñu mën ko tënk nga xam ni euh, su boobaa kii bi augmentation bi da nekk lu raisonnable ak lu supportable pour le consommateur sénégalais. budul rek euh, lii di diwlin gi yokkute bu amee souvent nan ngeen di organiser woo ba ñi euh, di consommateurs yi duñ ko yëg. waaw xam nga soo xoolee wax dëgg fa yàlla depuis un certain temps quand même je pense que njëg yi moom wàññeeku na lu gën a gis ko yokkute loolu moom vraiment suñu waxalee yàlla waaye nag loolu taxul ministère bi toog parce que xam nga depuis quatre vingt quatorze mhm. euh, soo xoolee économie bi li ñuy wax mooy économie bu kii la bu libre la maanaam nit ñi njëgi njëgi euh, seen seen seen seen euh, seen détermination sur le marché mi ngi dépendre si affaire concurrence bi maanaam entre offre ak demande loolu je pense que yàgg ngeen ko dégg ñu koy wax. Mm-hmm. waaye nag am na yenn produits yoo xam ne yooyu état bi dafa ni lii ay produits sensibles bàyyiwuma marché bi mécanisme euh, prix marché bi di déterminer les prix. man état may xool ban njëg doon war a jaayee ba pare ma waxtaan seeg ñëpp ma tënk ko mooy mooy wàllu suukar bi mooy wàllu dawlin bi mooy wàllu gaz bi yooyu soo xoolee ay produits yoo xam ni état bi moom mooy euh, euh, dëxëñ njëg yi wax ni lii lañ ko war a jaayee mais sinon dans la grande majorité quand même des produits les prix sont libres et le moins qu'on puisse dire mooy que ni quand même depuis régime boobu bu ñu commencé ay njëg la yoo xam ni dafa gën a wàññeeku ba pare aussi euh, kii bi euh, spectre de l'offre bi gën a yokku donc bu gën a jox choix consommateur bi am njëg ñu baax mais également ak possibilité choisir choix bu bëri donc loolooy euh, c'est-à-dire option bu état bi def mais am na yenn produit yoo xam ne moom foofu moom état bi daf koy saytu tous les jours di xool structure des prix bi jaree ñu ñu ñu fixer bi ñu fixer ko su ko jaroon ñu bàyyi marché bi Euh, lawal prix bu war. ñu wax ci ZLECAf bi nga xam ne euh, fàttali nga ñu sànq ne yow euh, ci domaine googu nga gën a gëstu tey ji dugg maanaam entraîné en vigueur depuis le premier janvier ci wàllum njënd ak njaay est-ce que suñu dëkk pare na pour àgg foofu. compétir waaw dama bëggoon wax ni ZLECAf bu mu entré en vigueur depuis deux mille dix-neuf la. Hmm. parce que baax na aussi ñuy fàttali accord bi ñoo ngi commencé négociation yi depuis deux mille quinze. te xam nga ku wax négociation mooy wax nan la dëkk yëpp di def ba gën a seen intérêt ñu mën ko jël en charge donc pour rassurer tout le monde Sénégal dafa bokkoon ci négociation yi ci buñ koy door deux mille quinze te avant ñu ciy dugg ñun noo def benn étude pour xool ñun lan mooy suñu capacité pour ñu mën a dugg ci ZLECAf te étude boobu ñoo ngi ko seqoon ak suñuy naataango waa ministère de l' économie suñu paree ci étude boobu après ñu def ay concertation maanaam ñu rencontrer tous les acteurs mooy ay ministère de l'industrie mooy waa douane mooy waa agriculture après ñu lëkkaloo également ak suñu secteur privé parce que soo xoolee ZLECAf bi secteur privé bi la concerné bi ñu lëkkaloog ñoom pour wax leen ni ah lii de suñu chef d'état yi bëgg na nañu Afrique ñu taxawal fi benn marché unique mais ñun la moo war nekk suñu taxawaay parce que Sénégal quand même toll nañu fi nga xam ne ñun Afrique euh, njëriñ rek nañ si war a gis njëriñ rek nañ si gis donc ñu waxtaan ñoom déggoog ñoom ak war leen études wax ni ah lii de tel secteur mun nañ si jël ay engagement beneen secteur bi moom buñ si jël ay engagement parce que dafa sensible ak aussi euh, suñuy naataango yi war na leen mën a laaj tel secteur ñu ubbil nu ko parce que ñun suñu industriel suñu secteur privé war nu mën dem jaay foofu euh, proposer leen suñuy produit donc loolu yëpp nañu liggéey donc euh, vraiment àndandoo seeg acteurs yëpp loolu moo waral après ñu mën a engagé wu si négociation yi ministère du commerce ministre du commerce moom la njiitu réew mi dénk mu dem di négocier donc bi mu demee négocier nag ci la ñu signé depuis deux mille quinze donc janvier deux mille vingt et bii nii mooy ndorteelu ñu commencé na meeg jaay bi. Mhm. te loolu aussi ñun duñ si am yaakaar parce que soo xoolee marché africain daanaka ñun suñu marché la. Mhm. soo xoolee Sénégal euh, performance yu gën a am doole yu muy def ci exportation yi si marché africain la ko def marché africain c'est pratiquement quarante pour cent de nos exportations ba pare marché africain croissance fi foofu la ëppee doole. ba pare marché africain lu fay jaay toog comparé yeneen marché yi bokkul parce que fii produit ay produit industriel pour la majorité des cas dañ fay jaay mooy produit yu ñuy lekk produit euh, yoo xam ni moom ñuy utiliser ci kër yi pour def entretien mhm. mooy produit yu ñuy utiliser pour équiper kër yeeg yooyu affaire tuyauterie affaire produit électrique Euh, mooy mooy service yu ni exporté mooy maanaam dëkk yoo xam ne ñoom ñu def ay grands travaux suñu entreprise dem jàppale leen mhm. liggéeyal leen mooy service informatique yi ay solution informatique yoo xam ne am na nañu wax dëgg yàlla ay sénégalais yu xarañ yoo xam ne ñuy dem jaay seen mën-mën ak seen xel jaay ko yeneen dëkk ñooñ utiliser leen mooy service de télécommunication yoo xam ne wax dëgg yàlla Sénégal am na benn toogaay bu mu toog de telle sorte que soo demee Guinée soo demee Mali soo demee Guinée Bissau da nga fay fekk euh, euh, ay service de télécommunication yoo xam ne sénégalais yi ñoo fa teg. mu mhm. indi bi njëriñ yu te lool soo xoolee lu tax mu mënoon nekk lu tax ñu mën a am présence boobu c'est parce que am na lu biir euh, Afrique lu ñuy wax CEDEAO te CEDEAO dafa nekk déjà benn zone de libre échange boo xam ni dafa réunir quinze pays. et si yooyu te am na si dëkk yu am doole bu mel ne Nigéria bu mel ne Côte d'Ivoire bu mel ne waaye ñooñu malgré doole bu nu am euh, indi lu benn yoon difficulté ñu dékku leen wax dëgg yàlla sunu entreprise am nañ fa taxawaay bu dëgër de telle sot que aujourd'hui Sénégal soo xoolee lu muy gagné ci CEDEAO en tout cas ñoom gagné ko sunu marché. ñun ñu ngi fay exporter plus ñoom ñu ngi ñoom donc soo xoolee expérience boobu ñu am CEDEAO donc genre expérience boobu moom la ZLECAf war a yaatal. mu law si dëkk Afrique yëpp donc su boobaa ñun daf ñuy indil vraiment xel mu dal wax nañu lu mënoon def CEDEAO dinañ ko mën a yaatal biir Afrique yëpp puisque instrument euh, avantage yu ñu amoon CEDEAO yooyu duñ koy élargir à tous les pays africains ce qui fait que aujourd'hui Sénégal dootul yam rek taxawaayam dootul yam parce que soo xoolee suñu exportation yi biir Afrique quatre vingt quatre pour cent yëpp CEDEAO lay dem mm-hmm. mais suñ demee ba yeneen dina tax ñu gën a yokk suñu taxawaay foofu donc moo tax ñu daal ZLECAf moom wax dëgg yàlla am nañ fi yaakaar bu baax a baax a baax et loolu suñu secteur privé ànd nañ si ak ñun hmm. ñoom seen bopp ñoon ni ñoom lii njëriñ rek lañ si gis Mhm. ñu ànd see ñoom lëkkaloog see ñoom. ci secteur privé boobu lay sax am na ay industriels yi nga xam ne euh, euh, tey jii exposé bi nga fi def nii ñoom ànduñu ci ndax nee nañu Sénégal amul ay industrie te it ci li jëm ci wàllum agro alimentaire tey euh, suñu dëkk taxawul taxaw googu ndax produit bu amee transformation ça laisse à désirer. waaw madame loolu je pense que wax baax na ñu xam ñan ñooy wax loolu. parce que ñun de soo xoolee buñ doon suñu taxawaay ñoo ngi Euh, ñuy wax les industriels. Mm-hmm. mooy ñoo xam ni ñoom ñoo am ay industrie du produire. Mm-hmm. mooy ñu nekk waa UNACOIS ngeen baal ma si si lim bi mooy ñu nekk waa kii CNES confédération nationale des employeurs du Sénégal. Mm-hmm. mooy ñu nekk waa CNP donc le conseil national du patronat ñooñu soo xoolee ñu ëpp ñuy produire. te ñoo xam ni moom la ZDK bi concerné ci organisation yooyu doon nekk ñooñu duñ ci lëkkaloog ñoom te amul fenn fooy dem ci ñooñu ñun la ah ZDK bi ñun njàqare la ñu njàqare dina am parce que ouverture boo gis am na ay menaces am na ay risques. Mhm. waaye soo xoole avantage ñoom ñu fiy jëlee moo ëpp fuuf ba pare ñun yamul si loolu parce que noo lëkkaloog ñoom xool déjà yan produit nañu war a mën a libéraliser ak yoo xam ni kenn du leen libéraliser parce que ZLECAf may nañu possibilité boobu wala produit bu nu war a libéraliser si ban diib nañ ko war a defee ak suñ ko waree libéraliser nan la ñu war jàppalee suñu secteur privé loolu yëpp waxtaan nañ si. Mhm. ba am nañu benn lu ñuy wax benn stratégie nationale pour la mise en œuvre de la zone de libre échange continentale africaine donc stratégie boobu si biir. am na bànqaas boo xam ne mooy gën a dooleel euh, suñu production nationale donc le mhm. secteur privé am boo xam ni day xool actuellement suñu secteur privé ban euh, ban rëq-rëq la war a mën a am suñu ubbee ZLECAf bi mhm. ak ñu donc loolu yëpp wax dëgg yàlla taxaw nu pare nañu ak ñoom def dara desul loolu ñu commencé mise en œuvre ba pare aussi am na beneen affaire aussi bu nit ñi war a xam. échange dina démarrer premier janvier. Mhm. mais du premier janvier nu ñuy ubbi frontière yëpp déedéet. affaire bi c'est une libéralisation sur dix et treize et libéralisation bi donc c'est en fonction justement des taux qui avaient été appliqués par exemple suñu jëlee benn produit damay wax nii damay joxe exemple mhm. jël benn produit bu mel ne béton boo xam ni foofu droit de bi dix pour cent la woon mhm. dama joxe exemple rek dix pour cent la woon donc boobu libéralisation bi ñu ne bii mi ngi bokk ci liste des produits à libéraliser libéralisation bi ce sera sur dix ans donc première année bi mhm. au muy nekk dix pour cent neuf pour appliqué ainsi de dem ba zéro pour cent donc loolooy wan ni te soo xoolee sax ñun suñu taxawaay biir ZLECAf du taxawaayu ay défensif non non ñun taxawaayu offensif la parce que on se dit que yeneen marché ñoom du ñuy ubbil te suñu ubbilee ñun am na nañu doole pour dem taxaw fa am nañu doole pour dem euh, jaay fa te loolu am nañu ay statistiques yoo xam ne war nañu ko xam nañu ñun fu ñu amee doole ak fu ñu amee faiblesse fu ñu amee faiblesse foofu laa lay wax suñu programme d'appui bi dañ fa am taxawaay bu baax mm-hmm. mais gën a yokk instruments yi di yokk promotion commerciale ñoom ASEPEX jàpp si ñoom bureau de mise à niveau jàpp si yooyu yëpp incha allah accompagner entreprise yoo xam ne ñoom ñoo war a dem pour ñu yaatal suñu taxawaay biir Afrique yaatal ko biir Afrique centrale yaatal ko biir Afrique de l'Est yaatal ko biir Afrique euh, du Nord parce que soo xoolee pour le moment ñun suñu taxawaay bi gën am doole Afrique biir Afrique sawu jant mooy au niveau des pays de la CEDEAO mais avec ZLECAf bi am nañu yaakaar te loolu études yi war nañu ko waxuñu waxuñu waxuñu pour waxante études yi war nañu ko waxtaan yi ñu seq ak suñu secteur privé war nañu ko que suñu duggee si ZRECAf incha allah suñu njëriñu économie rek lay doon. jeexaleeg euh, li nga xam ne moo fi xewoon euh, te euh, mardi bi la ñu doon vider dossier bi ca tribunal muy gadget maanaam fowukaayu xale yooyu nga xam ne ñu ngi ko doon jaay te biir fowukaay yi dafa am ay ay boisson nee nañ dafa am alcool tey jii dossier bi ñu yóbbu ko ci yoon ndax ministère du commerce dafa am benn taxawaay bu mu ci taxaw. maanaam xam nga en fait euh, produit kii boobu dossier boobu dafa nekkoon dossier boo xam ne dafa xawoon euh, complexe tuuti. Mhm. parce que soo xoolee ay produits la yoo xam ne duñ leen déclarer comme ay jouets et maanaam fii soo xoolee Sénégal à part le produit alimentaires yeneen produits yi bon da ngay ñëw rek ci te conforme aux procédures et formalités douanières nga dugal leen. Mhm. mais après dañu constater jot ay alerte que ni si biir jouets yooyu dafa amoon ay produits. lu wax genre boisson mhm. am na sax ñu ni affaire dafa amoon alcool et sunu analyse war nañu ko et dès l'instant que dafa am produit alimentaire normalement ñooñu duñ ko waroon déclarer donc comme produit alimentaire ñu mën a def analyse parce que amul benn produit alimentaire buy dugg Sénégal te douane euh, dugalal la ko sans pour autant nga war leen ay résultat euh, de laboratoire yoo xam ni direction du commerce intérieur ñoo la koy jox à travers la déclaration préalable d'importation de produits alimentaires malheureusement yi c'est des produits yoo xam ni on les avait pas déclarés comme euh, produits alimentaires parce que joué na leen déclaré woon loolu dina tax incha allah ñun ñu gën a taxawal suñu vigilance actuellement ñun soo xoolee sax au niveau du commerce extérieur ñi ngi liggéey di xoolaat réglementation bi pour xool dañuy gën a mën a am vraiment taxawaay bu gën a taxaw ci contre lu fekki euh, commerce extérieur bi e je pense que aussi ñun bu ñu jotee alerte bi sama naataango commerce intérieur bi génne na benn note de service pour demander le retrait du le retrait du produit de sous les circuits de commercialisation et loolu sax moo permettre ñu mën a retracer toute la chaîne de distribution ba mën a interpeller tous les commerçants qui se livraient à la distribution de ce produit te gis naa ne effectivement euh, procureur bi aussi taxaw na si ba l'affaire a été justement évoquée au tribunal ba jugement bi am na donc euh, c'est pour vous dire que vraiment suñu service ñu ngi taxaw temb di xool di saytu Euh, réglementation bi aussi ñu ngi xool nan lañ koy gën a adapté et d' ailleurs dégg ngeen ni dernièrement adopté noonu euh, adopté noonu mooy loi sur les prix et la protection du consommateur. bëggoon nañ ci gën a waxtaan mais bon comme euh, jox nga ñu digal ñu dem ci commerce intérieur. voilà voilà du di ñu mm-hmm. booleeg seen service ñu wax ci loi bi protéger consommateur bi. avec plaisir avec plaisir madame. d'accord merci beaucoup Boubacar Mbodj. jërëjëf man maa leen di remercier di remercier seen auditeurs yi di leen ñaanal at bu bees jàmm ak salaam xéwal futura yàlla daxal ñu mbas bi. Mhm. merci beaucoup.